si je fais un raisonnement par par l'absurde euh, bu ñu bàyyee président mu mun a am troisième mandat pour ma deuxième na mais mun nañu dem ba deux mille vingt sept président yóbbuwaat cinq ans yi def ko sept ans. Mm-hmm. par le biais d'un ah changé waat rek non Abdoulaye Wade def na ko à l'Assemblée je pense en deux mille huit. deux mille huit. a xam nga xam nga sept ans la woon. parce que ñu ngi naan la cause n'est pas intangible. voilà non ce qui e ce qui est grave non dama ne bu ñu leen bàyyee ñu koy laal rek. Abdoulaye Wade ñëw na ba 2008 il y a une clause d'intangibilité. c'est ça la différence. mais mais mais de la majorité ñu ngi rejeté loolu. ñu ngi naan la clause euh, concernant euh, la limitation n'est pas intangible. gis nga gis nga may mun Abdoulaye Wade ñëw na référendum moo ko mën a dindi. <laughs> changé na constitution bi def ko 5 ans ñëw ba 2008. def ah, ko 7 ans yóbbuwaat ko 7 ans en passant en passant, en par, par l'Assemblée président Macky Sall bu bu ñu nee ñaari mandat lay def ñu ñu may ko moom ci biir mandat mu changé ko ñu ne ko noo bii bokk ci bu demee ba 2027 bu ko changé tamit dañ ko naan non bii bokk ci bii bu bees la parce que comme bu dee dañoo bëgg a linké mandat yi ak durée bi mais bu ñëwee ne léegi 7 ans la dañ naan noo durée bi day topp kon 7 ans yi dañ naan ba ko bu dee léegi au lieu de 5 ans ñu ne léegi mandat bi 7 ans 7 ans la mais bon si on raisonne par l'absurde mm. mooy mun naa def deux mandats de sept ans dañ ko naan noonu diir ñaari mandats consécutifs mais nul li Maurice wax rek boo remplacer nul prono prono prono indéfini par Macky Sall Macky Sall ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs ça c'est mais la deuxième chose lan moo tax président Macky Sall war a légiférer sur un autre président ci beneen président buy ñëw bàyyi boppam mais c'est ça qui extraordinaire c'est-à-dire que il veut le prochain président bi ñëw mën na ko yow deux mandats nga mën a def mais man moom mën naa def. trois mandats mais yow kii waaj mais loolu mooy lan booy légiférer kay <laughs> jàpp ne lii moo baax ci réew sa bopp nga ko war a njëkk a te président Macky Sall ba mu koy def boppam moo taxoon. moi je pense que faut pas euh, ñuy euh, parce que nit ñi dañu dañu dañu sonn sax nit ñi dañu épuisé ci euh, quelque part euh, un professeur Ismaël Madior Fall c'est un professeur. mënu fee nekk dem na bay tutoyer certains professeurs ah ci nul nul nul mais lu ne lu ne lu waxee waxee nañ ko fi rek bés bu ñu gëmloo nit ñi ne lépp mën nañ koo changer lépp mën nañ koo expliquer waat lépp mën nañ cee ñëwaat mais c'est extrêmement dangereux président de la République au-delà que li mu nekk euh, le le euh, le père de la nation dafa am lu mu symboliser kàddoom dafa am lu mu symboliser donte wax na ko moi je pense que deux mandats yi mais vraiment bu ko bu ko dépassé li Maurice di wax rek entre huit ans dix ans président bu fi def dix ans nit ñi commencé nañoo sonn ci yow c'est-à-dire que aujourd'hui xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal président Macky bu doon lu yomb la assumé na ko bi yàgg troisième mandat xoolal nu mu nu mu diisee ci moom te maa ngi naan président Macky Sall kenn du ko dégg ci waxi troisième mandat day bàyyi ba déposé jot mu dem déposé taxaw fi génn ne bu woote réunion na damay def troisième mandat doo ko dégg. day bàyyi ba déposer conseil constitutionnel jot mu déposer dossier yi fi dafa diis ci moom parce que ça veut dire que ni mais président wax wax naa ñëpp et puis je pense pas que war nañ ko pousser ci dynamique bi mu nekk et jamais dans l'histoire du Sénégal un président mës na am opposition bu mel nii ci moom te pour man lépp lu président Macky Sall incarne lu mu symboliser vraiment ñu ko pousse ci lii ko comme mi ngi douté. mais mais jusqu'à présent président n'a rien dit Maintenant, il y a une question de morale qui se une, pose. Pour moi, c'est une façon même d'avoir de mettre le Conseil constitutionnel dans sa poche. Une fois de dire que mais le, Max, le président Macky Sall est-ce que dafa saisir le Conseil constitutionnel ba ne ni fii moom mat na c'est pas vrai c'est pas vrai je pense que euh, mën na wax li mu bëgg mais yàggul quoi c'est-à-dire que 2016 yàggul yàggul quoi c'est-à-dire que dafa des ci bopp nit ñi à tel point que et ñu jugee woon ci benn problème en 2011 moi je pense que fu àddina bi yëpp saluer te day xaw a gën a métti ci président Macky Sall moom it demoon ba ne damay wàññi sax ñaar ci samay mandat ndax sept ans yi dafa bëri da ngay wàññi ñaar mais deux ans. c'était l'argument de campagne du deuxième tour. mais et puis non non c'est ba mu toogee sax ba mu toogee ba mu toogee ba muy nekk président ba bay Sarkozy di ko xool fois en Afrique. un président sax di wàññi mandat mu sagal Sénégal yëpp ko léegi mu ne dem na conseil constitutionnel nekk mënatoo wàññi ok mu def cinq ans douze ans léegi mu bëgg a taxawaat ni li lépp lu ñu waxoon ci euh, mandat bi 2016 ak yooyu yëpp comme si dañu doon dribbler parce que bu dee Ismaïla parce que Ismaïla professeur Ismaïla Madior ni muy euh, euh, position ni muy changé man li ma tiital mooy. est-ce que c'est pas moom mënul bind lii ba pare mel ni daf ñoo naxoon quoi daf ñoo piégé woon on parle d'un état on parle d'un président de la république on parle des institutions nit mënu mënoo yor benn réforme di ko def comme si danga nga ci amoon loo xam ne da nga koy def pour nax ñu je pense que am na benn kàddu boo xamante ni am na respect boo xamante ni war nañ ko war nañoo am loolu ak ñun bu dee nag dañ koo defoon pour nax ñu nañ ñu ko wax ñu xam ni kon bañ koy def xamoon nañ ni lii mën na mën na leen may ñu am troisième mandat. alors l'incursion